te mbay mu doxul napp mu doxul leneen doxul waaye yooyu yëpp courant bi moo koy doxal courant bi dàgg bi ñu ñaanee courant ak bi mu amee courant yàggul te courant bi bi Moussa Kane ñëwee ak équipe am ak ñi ko war a jàppale amul un an courant bi tàkk loo xam ni ne presque Sénégal yëpp mun naa wax ne amu fi parce que am na dëkk yoo xam ne fi mu ne cinq ans quatre ans six ans sept ans seen courant mënul tàkk. courant dagge bi mu ñëw bi mu tàkkee mutul un an c'est amoon na ay coow coow li du dara mooy bi ñu gaay bi ñëwee ak matériels yi pour war a def courant bi ci biir kër yi ñoom Moussa Kane alors ñu ne leen euh, affaire bi ci affaire compteur bi foofu la ñu amee woon ci niveau un niveau deux niveau quatre alors ñu ne leen niveau un ak deux ak quatre daal ñun ko li ñu soxla daal mooy compteur boo xam ne ñaari weer nga fay ah loolu. ñoom monsieur Kane aussi bi ñu defee seen démarche avec monsieur le maire d' accord nañu alors pour contour ku jël deux deux mois nga fay waaye quarante mille francs ngay fay contour ñun ñëpp opposé wu coow li coow li ba ñoom demoon nañ sax ba ñu ne alors kenn du monter kii ci biir kër yi mooy yi ñuy monter ci biir kër yi population bi rek ku nekk këram kenn du ci monter ñun ñuy coow ak ñoom di xeex di xuloo population bi ñu bari. mont nañu am ñoo xam ni topp nañu seen wax monté wuñu léegi président de la république ñëw ak baaxam ak bëggum réew mi maye ne courant bi jëlee na ko ci quarante mille yóbbu ko ci cinq mille franc compteur wax ne it compteur bi dafa bëgg compteur yaxanal nga xam ni baykat bi mbaa ki ci àll bi bu taalee du taal lu bari man mii di wax ak yow am naa fukki fukki làmp ci sama kër. ak ñi nga xam daan naa forte forte ba rek lu mot vingt à trente par jour du ma lakk fukk dërëm ci guddi gi kon courant boobu ma ki indi baax na ci noonu léegi nag am ay yàkkat yu jógati ñu ne courant Senelec daal la ñu bëgg mu ñëw fii coole de xur ñu leen courant Senelec ñun bañ ñu Senelec bañ ñu leneen mais ñi nga xam ne ñoo fa ne ñoom lañ gis boobu ba léegi ñoom Moussa Kane ñoom musa gi ak seen équipe nga xam ne yoon ñoom la jox pour ñu exploiter zone bii. gisaguñu loo xam ne dindi na ko ci seen loxo kon lu ñu fa indi dañ ci jàpp ci la ñuy jàpp mooy contrôle bu ñu fa indi bu soobee yàlla dañu ko monte kon ñooñu aussi équipe boobu gërëm nañu leen sant leen muy Moussa kan ak ñoom musa Gueye ak Moussa Diouf mi nga xam ne mooy ànd ak gars yi ñuy monte fii nun day gërëm nañu leen te courant boobu it ku bëgg na monte ku bëggul bàyyi ku bëgg bëgg a waaye nag du ma lekk kenn du ci lekk noonu loolu duñu ci d'accord courant boobu daal lañ jàpp ba gis leneen lu ko tere gisuñu bu ñu ko gisu ñu ngi ci derrière Moussa Kane ak Moussa kii. ñoom dañoo ñëw euh, dajji ñoom dañoo ñëw biig ci guddi. parce que dañu ko commencé di fay lampe yële ngay lampe mbedd ak lampe kër yëpp dañuy dem ci fale kii kii bu alors euh, def seeni i pexe ak seen i mënin lampe dëkk bi fay def nañu ko trois reprises biig biig nag la ñu commencé di dajji compteur yi di yóbbu. parce que xam nañ ne peut être xëy na dañoo perdre mm. combat bi xam nga dañu ko ñàkk seen comprendre pas li ñu des daal mooy dese mooy yàq di yàq compteur yi di yàq lamp yi te jamono gii nga xam ne Sénégal fi mu dëkk boo dem fi mu ne courant la ñuy soxla am na ñoo xam ne sax ñu ngi jaar ci suuf pour am courant dagg am courant en un na ñu ne courant bi du tàkk ñuy jënd glace ailleurs match football boo amee dañuy dox ay ay ay six sept kilomètres di seetaane ah guddi eh, télévision du ñu ko seetaan. galaas fanweer ak juróom eh, di jënd sonel guddi bu jot waaye yooyu na courant bu ñëwee ñu ne eh, am ñoo xam ne ñu ne suñu maam yi ba cosaan ba léegi ci loolu la ñu ne war ñu bañ loolu mais man leen mais am na ñoo xam ne fi mu ne laax lañ daan lekk mais ceeb la ñuy añee ak ak ak ak soos yu ma kenn xamul kon réew mi dafa am changement kon dañuy ànd ak changement bi waaye naan alors courant bi mën nañu ko muñ ba fukki at mun mën nañu ko muñ ba fanweeri at yooyu ay waxu caaxaan la nun daal nous sommes pour le courant nun ñi nga xam ni Macky joxe na ndigal pour ñu moonte courant bi ci àll bi ñi koy monter kenn jëlagul ndigal bi ci seen loxo gërëm nañu leen sant nañu leen maire bi it ñoom la daan àndal ñooy liggéey xam naa ne jamono léeg-léeg mu dem ba kii jamono léeg-léeg mu dem ba lëj waaye li ma lay xamal mooy maire bi nga xam ne mooy maire tund wi moo yilif nit ñi gauche ak droite suñu chef de village mu ngi fi nee naa ko tëdd leen nag njaaxanaay njaaxanaay mooy njiit da ngay tëdd ak njaaxanaay sa njaboot bu ñuy xuloo da ngay taxaw ci digg bi bul far fii bul far fii du dëgg nun daal gàtt ci gàttal courant la ñuy soxla Macky indil nañu courant bu yombu ñu ngi koy doxal ñuy ñaan nag autorité yi ñii yàq suñu courant ak di sàcc suñuy compteur na ci état jóg taxaw ci ba dëkk bi am jàmm lëndëm bu lëndëmee sàcc dañuy ñëw parce que lëndëm moo tax sàcc yi ñëw bii parce que suñuy courant du dëgg kon li ñu bëgg daal mooy autorité yi ngeen jël seen mutuwaay balaa population bi ñi nga xam ñoo moom seen compteur jël seen mutuwaay avant que ça soit trop tard loolu la ñuy ñaan yàlla ko ñu ngi gërëm ñëpp ah. man Arona Mbaye laa tudd. Mamadou Gueye maay directeur technique société sénégalaise pour euh, l' équipement et l' bi nga xam ni moom la ñu jox tey mu exploité courant bi fii ci Dagg comme ni mu exploité courant Dagg nag la exploité yeneen 300 villages lañ ko jox dans l' ensemble du pays situé dans tout le département de Tivaouane Bambey. Mbacké ak Diourbel ak yeneen village parce que ñun ñu ngi ay exploité ba ba ba Linguère ak Daara ay village bon au départ état bi moo jël décision pour léegi dootul bàyyi Senelec rek muy gérer électricité bi fépp daf koy séddale Senelec yor lii ay privé loolu moo am fii moo am dans tous les pays du monde day doo commencé fii nag moo tax mu nekk gan lu nekk gan nag jaaxal ay nit mais ñi xam ne par exemple xam nañu ni courant yi doxee jaaxul leen parce que loolu moo am fépp. bon ñu ñu doog a ñëw fi bi ñu ñëwee tamit séance d' information yi ñu war a def yëpp def nañ ko pour expliquer leen conditions yi état bi fixé woon nag pour ñoom ñoom courant cheran na mais ñun mënuñu woon def lu dul li leen lii la état bi wax ku mën a jël nga jël ku mën jël nga bàyyi ñoom ñu ne jëluñu ndax dafa cher ñu continuer continuer ci yeneen village jusqu'à ce que état bi dellu si waat ni ñu wàññi nañu euh, frais yi donc lépp li ñu si doon am ñoom bàyyi nañ ko nañ ci bàyyi mille francs rek pour ça ñuy fay 5000 francs symboliquement pour ñu branché leen tarif benn la lépp benn la bon ñu commencé exploiter amul woon benn problème suñu équipe di ñëw di brancher courant correctement donc di def exploitation ñuy relever de facturer maire sax jël na abonnement normal pour éclairage public bi mi ngi jot ay factures di ko fay correctement aussi di ko fay par engagement donc jusqu'à la semaine dernière daal la ñu ñëw ñu woo ñu nu am nañu coupé courant bi bi ñu waxee coupé nañu courant bi sax nous a pensé que panne la wala da dara on a informé Sénélec Sénélec ñoo ñëw fii ñoom ni ñu du ci ñun. seen disjoncteur suule la ñu ubbi mooy disjoncteur bi si oto transfert bi ñu doog a ñëw bi ñu ñëwee ñun ah peut-être xëy dafa am ku fi jaar ubbi ko ñu fermé ko ñu ubbiwaat ko ci guddi ki ñu ñaat fermé ko ñu ñëwaat ubbi ko cadenassé ko def fa seen i ba yoo xam daal vraiment kenn mënu ko wax bon ay xonjoma ki ay téere ki ay sotti fa deret ak def lu nekk daal bon malgré tout ñu continuer parce que ñun tamit alors suñ liggéey la te du arrêté ci loolu. mais ce qui nous a étonné mooy ñun bi ñu condamné suñu installation foofu ba nga xam ne mënatuñu ubbi ñoom dañoo progressé continuer dem ci IACM bi mooy appareil bi nga xam ne mooy ligne haute tension bi nga xam ne moo nekk ci ligne interconnectée Senelec nationale bi ubbi ko ce qui est très grave ce qui peut amener ko ko ubbi sax da nga xamul parce que ubbi fi nga ubbi sax yow maradi mën na fa dal mais quand même on a compris que ñi xamuñu donc dañ leen war a xamal ñu comprendre bon def ci cadenas cadenas c'est comme si ñoom ñoo ko moom. kana boo ubbi nga ubbi sax bàyyi dem mais dañ ko ubbi di ko kandaase ñun daj nañ kandaa bi changé nañ ko di nañ suñu levier dem si yoon mais malgré tout il continue ba dégg ci guddi ñu ñëw non seulement ubbi ko mais dugg ci biir kër gi di sàcc seeni i compteur ba jël fi neuf compteur à abonné donc vraiment loolu daal moo fi événement yi nekk ndi moo tax tey vraiment bon léegi nag actuellement ñun nu sommes responsables dañu responsable yu ñu yu ñu jox ñu signé contrat état bi pour gérer village bi ak yeneen village comme lii dañ demee ne nii nag defoon na ñun affaire caaxaan la wala affaire yuy jeex la wala yooyu xam nañ ni ñii kat lañ nekk ñoom ñu ko arrêté li nga xam ne moom lañ yoon may dinañ ko jël dinañ dem ci yoon ñun ASER tamit xam ne mooy suñu kilifa an mandaté ñu fii suñu contrat donc wax nañ ko kilifa yi ñoom tam dañ jël seen responsabilité état bi dañ jël seen responsabilité pour que lii jeex ñi koy def bàyyi bàyyi ko ñu continuer am courant correctement